bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen ziar bu baax di leen nuyu di leen jox seen wàcc waaye di leen masawu coono yéen ñu fi teew ñëpp président Soxna yàlla def muy wax ci turu ànd sàmm li moom yàlla dogal ne moom mooy vice président bi moo bëgg wax ci kàddu coordonnier yi yàlla def na nag macha allah wax dëgg fa yàlla oote nañ te ñëpp wuy si nañu te lii rek lañ doon xaar ci bis bi di jaar képp ku ñëw la ma saw coono li nga xam ne nag moo ñu boole yaakaar naa lu yaatu la parce que li ñu boole du lenn lu ay jafe-jafe parce que nit bu demee ba nekk ci jafe-jafe war na taxaw mu def taxaw seetlu yàlla def na nag ñu nekk ci benn collectif muy ànd sàmm liñ moom collectif la boo xamante ne nii yaakaar naa leen mu daw deux ans mais suñu borom dogal na ne régions yi ci Sénégal yépp ñépp ñu ngi ci bokk tey jii li fi teew ci ay président yàlla dogal na bari na président bu Touba moo xam bu Mbàkke moo xam bu Diourbel moo xam bu Kaolack moo xam bu Kees moo xam bu Ngaay moo xam bu luga bu ñu limee dañuy jum région Sénégal yëpp ba département yi ñëpp ñëw nañu te képp koo xam ne président bi mu ñëw it yabal na ndawam yàlla da ko dogal li ñu boole mooy dañu nekk ci liggéey bu nekk euh, maanaam euh, liggéey boo xam ne ay dañu toll ci ay jafe-jafe yu métti jafe-jafe yooyu nag moo ñu dajale tey nim ñu dajalee mooy maanaam ñun président yi bi ñu demee ba xamante ne nii ñi nga xam ne ñoo ñu jiite bari na ci ñoo xam ne dañu lu ëpp bu ñu waxtaanee ak ñoom li ñu njëkk a xamal mooy ñun de xamuñu ku ñu defal parce que da ngeen deful bloc pour mën a ànd pour ñu defal leen loolu moo tax ñu taxawal lii def benn bloc ànd ngir dugg ci li nga xamante ne ni mooy li ñu moom te moom gi moom yemale ko ci suñu biir ku yëg ku yëgut ak ku yëgut yëpp yaakaar na yaa ngi ci biir loolu moom moo ñu boole fii tey li ñu boole mooy comme li ma wax léegi comme kilifa yi dañu doon am lay ne da ngeen a àndul moo tax mënuñu xam fan lañ jëm ak yéen yàlla dogal ne bloc bi am na bis mi ci tey lañ ko gën a dëggal ne am na parce que moo tax ñu woo média bi pour ñu ñëw fekkee parce que yaakaar naa ku joxe ay preuve moom amatul leen lu ñuy wax parce que soo demoon tey ci ñoom xamal leen ne maa ngi nii it dañaan la ana nga mais léegi ñoo ngi nii waaw li fi daje ci président rek man na ñaar fukk ak nangam di ko sant yàlla bu baax a baax am ñoo xamante ni nii nag yàlla dafa dogal ne ñi ngi ci secteur cordonnerie yi secteur boo xam ne dafa bokk artisanat te artisanat mbir la moo ñi ci bokk ñëpp dañ ci tënku mais ci baatu cordonnerie rek la ñuy waxe tey mooy ñi nga xam ne dañuy jub di yor ay sac di yor ay classeur di dem ci ministères yi di dem ci secteurs yi di xam ne ne ñoom ñoo représenté cordonniers yi fii Sénégal bis mi ci tey ñooñu nañ ci tey ci ñoom te def attention ñoom te xam ne ñoo ngi ni ñun cordonniers yi képp ku ñu soxla yaakaar naa boo ñëwee ci ñun di nga fekk base bi taxaw te loolu nga xamante ne bu fekkee moo mooñ doon tardeel am na amatul pendant deux ans ñoo ngi ciy liggéey ba yàlla dogal tey ñu mën a def daje bii kon ñoo koy sant yàlla bu baax a baax di rafetlu ñi fi ñëpp ci côté boobu daal lu ñu waroon bref la suñu paree war nañ dugg ci wàllu euh, pécha bi parce que projet la boo xam ne projet bu doy waar la parce que yaakaar naa projet boo xam ne ça coûte 30 milliards CFA yoo xam ne ni ñun sénégalais ñoo ko moom ñun artisanat projet bi li ci lënt bari na trop trop te lu ñu war a taxaw def ci ay taxaw seetlu la parce que gars yi am na loo xam ne ñu ngi koy waaj nag dama koy yëkkati muy ay mobilisation yu ñu war def yoo xam ne su fekkee kilifa yi dégg nañ ko nañ leen teel a alerte ñu toog ak ñun ñu waxtaan lu ko mooy ci foofu lañ jëm ak ñoom parce que boo xoolee le matériel bi nga xamné gis nañ ko ci biir li ci ci ay a bari parce que matériel bo xamné da jar francs nga yóbbu ko francs doubler ko 5 fois loolu kenn mosu ko gis kon ci côté bobit yalla dina dogal war nañ ci mëna a dugg waxtaan ci li dal moy li nga xamné ni que mu nek lo ni euh, dogal né pécha bobu 8000 lañ ci waron emprunté légui da fay te yaakaar naa su fekkoon ne projet boobu réussite na heure bii xale du jël gaal mag sax du jël gaal ndax say mbir na ñoŋ ba yaakaar naa da ngay toqaar waaye da ngay jël gaal ñàkk réussite ak kunari nekk ak ay tapale bari na bari waay boo xamante ni day bu ñu xamoon di nekk ci xoolu ñi ko seq dinañ defarwaat bu baax wax dëgg fa yàlla man loolu moom xalaat naa ko baax baax kon daal loolu mooy li nga xam ne moom laa doon ubbee ñi nga xam ne war na jàllale yeneen message yi it nekk orateur yi jox nañu loo xam ne a wax kon ma ñoo ngi jégg lu baax nag euh, man la lu ci xaw a lu ci rafet yàlla la lu ci jubadi it man la ngeen djegal merci beaucoup. yalla dogal na ne ñun dañu gëm ne il faut ñu de un dinañ ak commerçant yi deuxièmement suñu nous ak commerçant yi dafa am ñu commerçant yi olof dafa wax bu ki fay ñun ay jur ci seen biir mais am ay nous gëm ne ñoo am accès ci matériel bi pour wàññeeku parce que comme ñoom lañ jox marché bi ñu que ñu nous ko ñun nous impôt kon war nañ mën a ñëw jege ñu bañ xam lan mooy jafe-jafe ñu jim ko lijjanti merci beaucoup. yan may fayeeku yan may yan may yan may fayeeku port wala ay de port moo nekk ay taxes yoo xam ne dañ kaa yokk élevé nañ taxes yi kon nag loolu nag tey jii ñu war a taxaw dañoo war a taxaw en face jàkkaarloog gouvernement bi ne ko carrément ñun ci doomu réew lañ bokk li ñuy apporté di ko dugal ci budget réew mi ce sont des milliards taxes yi fi dugg ce sont des milliards dañuy fay juuti dañuy fay impôt di dugal ci réew mi nekk facteur de développement il faut nag tey ji nag ñu bàyyi ñu xel xam ne ne carrément cordonnier bi dara doxul dara doxul dara amul ministère buñ ñu ko jox mu ñëw doxal ci benn pa benn jéego boo xam ne cordonnier ñi ngi ci gis seen bopp kon nag tey ji nag il est temps ñun booloo nañ nekk benn collectif ensemble lu ñu moom ñi fi nekk ëpp na près de près de près de 20 euh, près de vingt présents OPA yoo xam ne ngi ci biir collectif bi ñu àndoondoo nag ñu ne nag dañuy xàccandoo dóorandoo pour une seule initiative initiative mooy lan lan mooy doxal cordonnier bi lan mo koy avancer lo lan moy tax kenn ku nek nga meuna fay sa location lan moy tax kenn ku nek nga meuna dem sa keur joxe dépenses lan moy tax kenn ku nek bu ñewé ëlëk fi kenn ku nek gaare sa auto kenn ku am sa keur parce que yooyu yëpp dafa wara nek dafa wara am président dëggal nañu 1000 dëggal nañu 1000 1000 maisons yo xamné ne dana ko jox artisans yi mais ñun patay tey gis ñu dara kenn joxuñu dara dañ ñoo sagané mbañu karam borom koy fajal bopam il est temps nak ñu bolo réunir notre force réunir notre force dernier notre corps de métier baña xaar sang baña a xaal pôle tey jii ñu ñoo ko mën a lijjanti ñoo ko mën a faj moo tax nag tey jii ñu ñëw fii ñu ne dañuy def point de presse point de presse bi ñu def nag jafe-jafe nga xam ne mi ngi ci métier bi c'est énorme c'est énorme mënatoo mënatoo mënatoo jaay soo produire soo produire pour mu nga pour pour nga mën ko jaay problème gu metti la mu nekk ay difficultés yoo xam ne ñu ngi koy dund ba suñu place yi bëri na coordination yoo xam ne perte nañu c'est perte nañ seen place nekkatuñ fa parce que amatuñu lu ñu mën a fayee location amatuñ lu ñu mën a fayee location ba ci tey jii suñu mbokk waa ri onze yi fi nekk di tey ñu leen di waaj yëkkati mais war na leen mën a caser war na leen mën a am feneen foo xam ne foofu la leen a mën a jox parce que nguur gi dafa war a promouvoir say jeune su réew da nga leen di promouvoir bu ëllëgee fu ñu mën a nekk lan lañ mën a liggéey lan dëkk mën a avancé loo yaakaar naa loolu mooy avancé loo dëkk te loolu mooy tax dëkk bi mën a jëm ci kanam ñu mën a dem à l'avant tey jii nag taxaw nañ nag ne noo kenn dootu laal suñu corps de métier ñun pare nañ lu ñu leen jaral nag jaral nañu ko te nag suñu pare bi am na yeneen plan d'action yoo xam ne dañ ko teg bu jaree ñu wàcc tali bi wàcc tali bi affronté ak ñoom wala na leen fi mu toll nii lanaan am démb ak barki démb dootul am rongañee baadoola ba doon cere buur jeex na tey jii waaw merci hmm. waaw ministre bi ministre bi fa njëkkoon nekk muy Paa Abdou Amadou Ndiaye demoon nañ yóbbu ko fa mun na loolu ministre des force des armées moo ko yor ma ne ko nag bu fekkee en tant que un ministre munoo dem conseil des ministres ministres yëpp toog nga plaider les cordonniers yi ñu fexe ministre des forces toog nga fexe mu jox lii cordonniers yi kon ministre boobu il problème il a problème parce que bu fekkee da ngaa nekk ay ministre tutelle des cordonniers da nga leen war a défendre suñu seen seen doléance ba jox la ko soo demee conseil des ministres da ngaa a toog ñëpp toog nga ne leen ude yi am nañ jafe-jafe ak jafe président toog bu ko defee ñu saafara ko fañ ko war a saafara parce que ñun ñoo ko fa bàyyi la ñun ñoo ko fa bàyyi ñoo ko fa teg ñoo koy fay suñu xaalis li ñuy dagg ci impôts yi dañu ko dagg moom lañ koy fayee kon nag tey gi suñu soxla da cee war a taxaw ba nga xam ne ñun dinañ am soulagement waaw demuñu xool ministre des forces des armées parce que dañoo am suñu ministère tutelle boo xam ne moo ñu war a défendre bu fekkee moom fute na yaakaar naa ne demaat feneen tamit day andi problème moo waral tey jii ñu dajaloo ne dañuy déplorer jafe-jafe ji dañuy déplorer métit métit gi foo ko séentu foofu léegi nag moo tax tey jii ñu ñëpp ñu dajaloo toog dans dans une table ñu ñëpp président OPA yi toog fi war a kaas jafe nga xam ne moo nekk ci biir métier bi tey xoola saak bi nu mu rafetee xoolal saag bi na mu rafetee tey ministres war nañ def bu ñuy dem bu ñuy dem conseil des ministres jël suñu saag yi téye ko tokk di ko tiitaroo naan suñuy doomu réew ñoo ko defar mais sa réew boo bëggee mu avancé yow yaay sag sagal sa doomu réew yow yaay yaay def yaay créé yaay créé engouement boo xam ne doomu réew yi dinañ ci mën a yéeg pour mën a zolé na pour mën a dem à l'avant ñoom ñëpp ñu si ëpp boog ñoom ñëpp am nañ carte professionnelle mais ñi amul carte professionnelle bari wuñu parce que tamit loolu tam bu ñu koy wax tamit dafa am région yoo xam ne ak département yoo xam ne amuñu chambre de métier antenne lañ am kon lu mel ni Pikine antenne la am Kër Massar antenne la am waroon naa am chambre de métier boo xam ne suñu soxlaa suñu yenn papier yi dinañ dem ñu fournir ñu ko waaye yaakaar naa ne am na foo xam ne tamit chambre de métier tamit liggéeyam des na war na gën a mën a ñëw vers les cordonniers war leen bën a racager ñu gën a mën a toog ñu mën a liggéey ensemble parce que métier bi ñu liggéey métier bu noble la métier la boo xam ne tey jii lu bari lay apporter ci réew mi parce que li mu fi andi ak li mu fiy dugal lu bari la moo tax tey jii ñu jug ñu ne dañuy xeex xeexu xeexu ñoo ma sàmba xeexu ñoo moo demba mais suñu corps de métier bi nga xam ne lañ bëgg a naxasal moom lañ bëgg a yëkkati jëmale ci kaw bu loolu amul dañuy dem vitesse au oh, vitesse supérieure suba bu nañu xaar dañu wàcc terrain bi du leen may dara dañu wàcc bi dañu wàcc terrain bi parce que gis nga nen kenn ku nekk bu ñu laalee bu bu la laalee nga jug taxaw riposter ne carrément li nga ma def du yoon yoon dina ñëw dal seen kaw mais fi mu toll nii moment bi ñu def nii bu subaa bu dañu xaar ci préfet ba dinañ dem déposer droit de marche dem marche génn ci kaw télé bi génnee coordonnées yëpp coordonnées yëpp génn ñu wax leen ne lii ce n'est pas normal parce que boo nekkee ci un pays de droit dañ laa war a encadrer dañ laa war a aar parce que da ngaa yor sa corps de yaa ngi contribuer ci li réew mi di dox te képp kuy contribuer ci réew mi di dox réew mi dafa la amee njukkal bu la war a delloo. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu jataay sa jataay bi ni dana mën a demee ndax euh, li ko waral mooy ñun ñëpp xam nañ si li ñuy tënku si li ñu nekk muy jafe-jafe yi ñu nekk ñu coordonniers yi moo tax na ñu taxawal collectif coordonniers yi américain ànd ànd sàmm li ñu moom ah, yàlla dogal ñu def moom mooy président bi ñu leen di félicité yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di wax ne bu ngeen bu gisee lu mel ni am jafe-jafe yi dafa bari sama gars yi fi toog léegi wax nañ ko jafe-jafe yi dafa bari su ngeen xoolee Sénégal actuellement li fi nekk ci ay concurrence dafa bari su ngeen xoolee Turquie mi ngi fi su ngeen xoolee Chine mi ngi te Chine ak Turquie yu nekk ñoom seen gouvernement da leen da leen a jàppale ñun suñu gouvernement leen luñu jàppale si ñun amul te nag maa ngi dégg ci gars yi ñu naan président de la république mag président euh, Macky Sall def na si artisan yi ay milliards mais ñun cordonniers yi ana milliards yi ñun cordonniers yi gisuñu si dara dañ koy dégg ci Sénégal yi ñu koy wax rek di ko dégg si artisan yi ñu koy wax lenn loo xamante ni état bi jóge lu jóge ci état bi taxaw ci cordonniers yi amul dara amu ci concurrence bi solol nañu parce que dafay wax yow nii dàll Sénégal yi jaay da ngay liggéey say dàll ba pare doo gis fenn foo ko jaayee marché bi dafa tëj Sénégal euh, euh, euh, Chine ko tëj ak Turquie bagage yi bari na Sénégal foo tourné bagage yi dàll yaa nga fa te dàll yi benn sénégalais liggéey ko te ñun ay doomi sénégalais lañu li ñuy liggéey lan la li ñuy liggéey lal pour sénégalais yi la li ñuy liggéey pour mën koo mën a jaay sénégalais yi la mais kenn sénégalais mu tula jaay benn artisanat benn sénégalais benn cordonnier mu tula jaay soo dikkee ci marché bi soo demee da nga fay fekk dàll dàll Chine ngay fekk bi daal di Turquie ngay fekk si marché bi mais loolu dafa jot pour ñu dafa jot pour mu ay doomi réew mi lañu lii la ñu yor ci lañu yaakaar moom la liggéey moom la yor suñu doom yi si lañu yaakaar yi si suñu doom réew yi di faatu ci gaal gi yi yi coordonné nga wàcc si seen liggéey dem dawale jakartaam xamuñu ko musuñu koo def xamuñu ko mais lu ñu naka la def jàkk pexe moo tax ñu koy def lu noo ñu ko teg ñi ñu bokkal de ñi ñëw la mënuñu amuñu yemuñu ak wax ak yéen benn coordonnier boo xam ne mi ngi ciy gagné dara amu ci coordonnier yëpp nga ngi di taxawaalu léegi nag dafa amoon nag muy tabaski sax lañ naa wax tabaski wala korte mais jamono yi toll ni benn tabaski wala korte buy cordonnier di liggéey di di am dara amatul mais loolu dafa jot mu arrêté mais li ñuy yor dafa dañ ci war a mën a liggéey man ci war a mais mun dañu dem la yore moom ci lan ndax euh, euh, yéen na nekk parce que dañuy toll foofu jamono joo xamante ni solution rek la xool. lan la lan ñun naka la ñuy mën a ba coordinateur mën a liggéey naka la ñuy mën a def ba coordinateur yi a yor seen i doom a def ba coordinateur yi delluwaat seen liggéey la ñuy xalaat mais bu période bi jeexee ñu bàyyi gars yi dugal ñu jaww lan moo waral mënatuñu bu duggatee dugatee baraxlu ñu arrêté dàll chinois yi ba ñu ba ñu dugg tabaski ba ñu jeexal tabaski ñu bàyyi ñu delluwaat chinois yi ñu mën a am nañu def suñu liggéey beneen bi ci des ñëpp xam nañ ne état bi mi ngi jël ay milliards di ko def ci téer yi ñoo ngi liggéeyal bourse xale yi mais pourquoi pas ñun coordinateur yi mu ñu liggéeyal euh, xale yi ay dàll suñu génnatee tabaski ñu jox ñu marché ñu liggéey ko xale yi lan moo loolu su ngeen xoolee Sénégal man wax ne est-ce que ñun ñoo teg cordonnier yi dàll bi Séné mais ay Sénégal da ko liggéey su ko état bi soxlaa da dem da koy wuti te Sénégal yi mën koo liggéey fii Sénégal ñu baxoo ñu ñu bàyyi leen ko dem di ko di ko wuti bitim réew xam léegi suñu doomi réew li liggéey nu muy jariñ bu baax seetaan ñu ndànk sax mu doo mel ni jéemul dara si ñun seetaan bu baax la def suñu diggante ak moom xooluñu jëm jëmuñu dimbali ci dara li ñuy wax lépp ci état bi ñu dañ koy dañ koy dégg rek coordonné yaa ngi toog dégg rek dañ ci am ñu nee état bi yaa ngi dimbali artisanat yi ñun coordonné yi dégg lenn luy jógee foofu di wàcc ci coordonné yi amul mais loolu dafa war a jeex parce que ñun ay doomi Sénégal lañu tey bu ñu bu ñu taxawee bu ñu soxlaa Sénégal yi wàcc si ñun nañu kaay leen jàppale ñu su jeexee pare nañ si ñun toog duñu seetaan mais loolu dafa war a arrêté Sénégal noo xam nga dañu dañoo toll ci jamono yoo xam ne man dama sonn sax ci ci jàkkaaroog ay ministre parce que nag ki fi nekkoon toog nañu ay yoonu yoon wax nañu ci lii may wax ak yéen naka la ñuy mën a def ba dimbali coordinateur yi ñu mën a liggéey toog nañu wax ko ba ba moom si wàllu borom moom ne ma Ousmane ma ne ko waaw mu ne ma ba ci saag yi saag yu rafet yi xale yi mën ko war ñoo ma liggéey xale yi di ko xale yi di ko jàngee mais bañ ci waxee ba tey phrase daalu président Macky Sall moom ñu entreprise moom ñu soxla mu woñu ñu tok toog waxtaan ak mom xol solution bi def ba suñu doomi yi réew yi mën a liggéey ni ñu delluwaat yoraat suñu suñu suñu suñu xalé parce que atelier bo ci dem presque kenn nekkatu fa ñepp jaxlé nañu xamatuñu fu ñu jëm mais lan moo waral concurrence rek moo ñu ko tek du dara concurrence bi rek moo ñu ko tek li ñu ubbil marché bi ñu liggéey nañ ñu dimbali ci marché bi ñu mëna a liggéey mais duñu bayyi rek di seetaan loolu fay jex Sénégal parce que nak sonn nañu kenn liggéeyatul ñoy taxawal mais loolu da war mën jex bari na xam nga ñun man tégal indi la ko solution so fekkee mëno tecc soble euh ni nga def ni nga def ni nga def euh, euh, ki pour ñu man ñu nga xamanté man ñu ñu ci walu ñu mëna liggéey ndax bo arrêté soble yi bo arrêté euh, ko ni ñu koy wax sax dal yi importé bi baraxlu ba tebeski ñun dañu mëna liggéey so défé nga ubi yu waroon ñu ay dal xalé ñu mën ko liggéel élève yi comme ñëpp mais ñu mëna am dara lu ñu def mais nak taxawaru li ñi def kër goo ci dem mi ngi taxawalu xale yi jaaxle nañu borom kër yi jaaxle nañu xale yi nga xam ne mën nañoo dem seen yoon dem nañ seen yoon xamut ñuy dem dugg ci gaal yi xale yi dee ci gaal yi mais te ñun ñu mën a téyewaat xal a xale yi dañ daan ñee seen patron yi ñëw di ñëw ñëw ñëw mais amatul patron boo fa dem gisutoo benn xale bu bu ñee mën faa toog di liggéey mais xale patron bi nga xam day toog ci place am di liggéey yor xale bi jabar dikk na a jeex Sénégal dañu war a gestu ñun état bi xool ñun ñooy ñan li ñuy liggéey lan la ñun ñooy ñan ci Sénégal yi li ñuy def ñu ñu tudd ñu tudd jàppale ñu ñu toog mën a ñu mën a teg teg solution waxtaan. coordonné non non amu fa kenn toogaluñu fa wala boog ñu ñu yaakaar ne ñu ñu yaakaar ñu fa toogal toogaluñu fa seen bopp lañu fa nekkal. parce que ñu daal dara lu mën a wàcc ministère lu mën a wàcc état bi dugg si kuréel yi amul. ba ci dem na ci ba cent cinquante mille ñu doon jox ñu doon jox euh, euh, artisans yi. ñu koy wax dara amu ci. benn ko kuréel yaa ngi toog kenn ku si mën a jot saafara amu ci mënuñoo dimbali kuréel yi dimbali wuñu leen si dara ñun daal di dañoo fa teg comme seen seen benn zaaru kii bu ñu war a utiliser ñëw ci ñun a wax a wax kaa lañ jàppale ñu bu ñu si paree jeex na bu ñu paree si ñun te loolu mooy arrêt léegi maa ngi dégg président Youssou Kabara di ko wax dafa jot ci buñ ñu gestuwul den woo cordonnier yëpp ñu génn ñu def marche bu doy waar marche boo xam ne dañuy ànd ak suñuy doom ànd ak suñuy jabar ñëw taxaw def marche bi wan àdduna bi yëpp ne sénégalais yi cordonnier yi lii la ñuy daj Sénégal sonn nañu sonn te dañ koy wan àdduna bi yëpp ndax bu ñuy ñëw dañ la woon ne ñi ñi nga xam ne ñu doon dundal mënatuñu ñu doon dundal muy suñuy jabar ak suñuy doom muy suñuy yaay ak suñu suñu papa yi bis bu ñuy def marche bi dinañ invité ñëpp ay ñëw cordonnier yëpp ay ñëw ñëpp ay daje ñu def ko je, salue tout le monde. Je m'appelle M. Mbou Assal, président FEX, Fédération des acteurs industriels du du Sénégal, et membre de, cette, euh, de ce mouvement, de ce collectif, euh, Ensemble qui signifie sauvegarder notre patrimoine. C'est ce que ça signifie en, en, français. Donc nous sommes membres de ce euh, collectif, raison pour laquelle nous avons une satisfaction de venir assister à ce point de presse qui a une vraie, une grande ampleur euh, par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Parce que comme vous l'avez vu, tous les présidents de région sont venus rejoindre euh, ces, journées qui, qui, a une importance pour, le, pour promouvoir les difficultés que nous traversons dans notre euh, filière qui est la cordonnerie. Comme il vient de le dire, vous savez que euh, tout ce que vous avez vu une chaussure qui a été produite et qui a été produite par des Sénégalais et qui en produire encore beaucoup plus. Ça veut dire que le manquement que nous avons au niveau de notre secteur, c'est que l'État n'a pas accompagné les cordonniers. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour réclamer que le, secteur de la cordonnerie soit accompagné. Comment les accompagner Il faut les équiper. Nous l'avons toujours dit. Parce que ce qu'ils font, ils le font à la main. Et c'est très difficile. C'est du handmake. C'est une chaussure qui pouvait coûter au moins 250 000 francs. Mais comme vous voyez ces chaussures, ils n'arrivent même pas à vendre ces chaussures-là, souvent à 25 000 francs dû à des difficultés de manque d'équipement pour pouvoir mieux produire leurs produits. C'est ce qu'ils déploient. Et il y a aussi le programme PEJA dont ils ont parlé. Tout le monde sait que dans le programme PEJA, euh, la cordonnerie n'a pas été retenue au nombre dont ils voulaient quand même euh, que ça soit retenu dans le programme PEJA. Donc le nombre a été très limité. Et nous réclamons, PEJA est déjà parti, tous ceux qui réclament, ceux qui sont dans le programme, ils réclament le matériel qui coûte excessivement cher, des machines qui peuvent coûter 700 000 francs, on vous euh, on dit que ces machines peuvent coûter plus, ce sont des réclamations que nous faisons pour le PEDA. Et les formations dont ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont vraiment, euh, ont vraiment la main pour pouvoir faire le travail dont les Sénégalais ont besoin. Et voilà pourquoi aussi, nous avons aujourd'hui besoin des formations dignes de son nom. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est des formateurs, des gens qui ont appris leur métier et qui ont vraiment suffisamment de talent pour pouvoir former euh, les jeunes qui sont dans leurs ateliers et qui n'arrivent même plus à former parce que tous ces jeunes ne veulent plus faire le travail dû à un manque de moyens, euh, dû à, travers leur, chef euh, d'atelier. Donc, nous demandons à l'État que ces coordonnées soient vraiment accompagnés avec du matériel qui pourrait quand même leur permettre de faire la finition dont les Sénégalais réclament toujours, ce qui va aussi limiter le problème de l'importation que les Sénégalais font chercher. Parce que tous les chaussures que nous parlons aujourd'hui, ce sont des commerçants sénégalais qui vont les acheter à l'étranger, soit en Chine, soit euh, en Turquie, soit ailleurs. Nous avons des Sénégalais qui, font de l'importation, et ce qui n'est pas bon pour le secteur. Donc, si jamais que ces cordonniers arrivent quand même à pouvoir euh, faire des travaux en grande quantité, je pense que ça quand même pourrait limiter euh, le problème, problème de l'importation au niveau de ce secteur. Donc vraiment, nous disons que ces écoliers sont vraiment fatigués. Tous ceux qui sont ici dans la salle, la majeure partie, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des migrants. Parce que tous ceux qui sont ici dans la salle n'habitent pas Dakar. Beaucoup parmi habitent soit d'Urbel, soit Louga, soit euh, Voilà, donc c'est des artisans, soit Ngaï, c'est des artisans qui sont ici et qui sont des migrants chez soi-même. Parce que je l'ai dit, la dernière fois, tout ce que vous voyez ici, si ces gens-là quittaient la Médina, c'est les populations de la Médina allaient avoir des problèmes parce que ce sont des gens qui payent le loyer, ce sont des gens qui achètent la nourriture, ce sont des gens qui payent tout ce qu'il faut au quotidien, qui payent l'électricité. Donc ça, c'est un charge. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des migrants qui rentrent de, temps en temps dans leur village parce que les difficultés sont énormes au niveau de Dakar. Ils travaillent avec beaucoup de difficultés. Donc nous demandons à l'État que vraiment ces gens-là, qu'on leur vraiment donne euh, le droit qu'il faut, qu'on les accompagne parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés. Souvent, ils ont des problèmes de, crédit. Souvent, beaucoup parmi eux ont des problèmes de crédit pour pouvoir quand même aller faire leur, achat au niveau de, la matière première. C'est vrai que la matière première, ça coûte cher. Mais un jour, on aurait besoin quand même que ces matière première soit subventionnées par l'État. C'est possible. Si jamais que ces matières premières est subventionnées par l'État et qu'on ait des centrales d'achat, et ce qu'il nous faut, avoir une centrale d'achat pour pouvoir quand même travailler, s'approvisionner, travailler, et rembourser, Je pense que là aussi, ça fait partie des nécessités. Donc vraiment, je ne sais pas, euh, je n'ai pas d'autres mots à dire. Tout ce que nous réclamons à l'État, c'est que ce secteur soit mieux accompagné. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Maroc, on nous parle d'ailleurs. On sait que tous ces pays-là ne travaillent pas mieux que ces artisans. Ces artisans sont très talentueux. Mais la seule chose qui leur manque aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et nous demandons à l'État vraiment que ces artisans soient accompagnés. Il n'y a pas que les cordonniers, il y a les maroquiniers, donc c'est un corps de métier qui est inséparable. Parmi vous avez des cordonniers qui vous faire de la cordonnerie et que vous faites de la marécunerie. Donc ils ont deux talents. Et quand vous avez un tel potentiel, moi je pense qu'on doit les accompagner, on doit les équiper pour qu'ils puissent quand même parvenir à satisfaire leurs besoins et de produire en semi-industriel. Tant que nous n'avons pas cela, on va continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour demander à l'État que les cordonniers, les maroquiniers qui sont dans ce pays, qu'on les accompagne, qu'on les équipe qu'on les finance, qu'on leur donne beaucoup plus de formations, qu'ils aillent chercher des formations au niveau de l'étranger. Aujourd'hui, les formations qu'on leur propose, ce sont des formations qui ne les intéressent même pas. Parce que y ce sont des gens qui sont déjà qualifiés, ils ont une qualification. Voilà pourquoi, souvent, quand on les appelle pour faire des formations, ils ne viennent pas. Parce que ce genre de formation ne leur, ne leur aguerrit pas. Voilà pourquoi, souvent, ils ont vraiment besoin de partir soit en Italie, de partir soit euh, au Maroc, de partir soit dans les pays d'Europe de euh, l'Est, pour avoir une bonne formation qui pourrait quand même leur permettre, dès qu'ils rentrent ici, de former leurs jeunes artisans pour que vraiment l'émergence dont on parle dans ce pays ne peut que se trouver dans le secteur de l'artisanat. waaye am na loo xam ne mënul ñàkk il ñu waxtaanee ko su ñëw gi ñëw fii tey jii nii lu am solo la kenn ku ne boo xalaatee sa maanaam li ci ginnaaw ak fi ñu toll tey danga xam ni am na avancement waaye nag am nañu retard am nañu retard mooy suñu gouvernement jàppale wuñu loolu dëggu la ñëpp xam nañ ko waaye tamit ñoo ngi góor góorgóorlu pour jéem a yóbbu suñu bopp fi nga xam ne si mënuñu fa woon egg waaye ñëw bu ñu gisee danañ xam ni.

parce que nekk sa patron mu koy war a ndékki wala war a joxe dépense di ay problème nga di ko gis mu dof sa war a dégg day waxante dëgg parce que tamit métier bi dafa doxul li mu war a doxee doxewu ni parce que ñu amuñu fonds bu ñu mën a liggéeyee gouvernement bi dafa mel ni gisuñu te pourtant métier am na solo am solo goo xam ni suñ ko xamoon ñoom dañuy daw topp suñu ginnaaw parce que maanaam mën nañu am ay emploi yoo xam ni ci métier bi fa derbe bee commencé ba ba nek sac wala dal wala ceinture wala bracelet montre secteur secteur bu ci nek ay nit mën caa liguey liguey bo xamanteni lu jëriñ état bi lay doon jëriñ askan bi yëpp mais dafa melni ni lool ba donc man xamna ni bon il faut ñu jéem a parce que ñoo gis leen yombul léeg-léeg da ngay am envie pour dem ci ñoom mais da ngay daw ba sonn

yokkute la waaye tamit mën naa gën a yokku man na gën a yokku bu baax a baax ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp man village national Guédiawaye ba ma ne maa fi président ci ude yi ne foofu man maa ngi tudd Ibrahima Mbow may président bi ne foofu waaye façon nekkin bañ fa nekk ma nekkin ba metti na doy ku ne jom ngay wéyee rek ak sa mais nekk nañ fa nekkin boo xamante ni si bu ñu génnoon di ñëw ci ñun vraiment danañ xam ni liggéey bi sooxee na sooxe na sooxe goo xam ni kenn mënu ko expliquer li fekk ne ko ci secteur bi mënoo ko xam donc loolu nag vraiment war nañ cee jàpp war nañ cee jàpp war nañ cee jàpp bu baax a baax ñun nag ñoo ngi def lu ñu man saa suñu xëyee ñoo ngi dem atelier ñoo ngi toog ñoo ngi ànd ak suñu ngor ànd suñu jom ànd ak suñu fulla sàcc ñu defuñu dara defuñu dara loo xamante ni état am na ci ñu aw yoon

parce que mënuñu dem lu melni ni projet paysage bi bi fi génnee dañu ñëw ci ouré yi ouré ngay dugg mbaaru ouré nga fekk fa benn patron ak cinq emprunté mu leen jàngal métier te projet boobu emprunté moo leen taxoon jóg ban urée moo bénéficié ci projet paysage bi amul xam nga ñu nekk ci benn situation boo xam ne dañuy ñëw suñu soxlaa mbooloo ñu woo cordonnier ñu daje mais après dara du revenir si biir cordonnier yi loolu nag ñun dañu dépensé ay ministre ak ministère président Macky Sall yow la ñuy lancé appel dañu la soxla toog ak yow parce que góom bi fi mu toll ni yow yaa ko mën a defar quoi xam nga am nañ benn problème boo xamante ni mi ngi suñu biir ñun ko rëñee yi def nañ li ñu war a def ci métier bi lu mel ni tey lii comme ni ko ñëpp waxee fii lii travail à la mairie fii lañ ko defaree Sénégal doomu réew mi ñoom ñoo ko liggéey te gis nañ tey boo xoolee dàll bii ñaata euh, policier wala ñaata homme de terrain ñoo fa nekk di porter comme dàll bu toll nii te dàll bi tey bu fekkoon tey dañ koy prix bi da dàll bu nekk dina jox 100000 francs ak lu teg pourquoi pas ko commander doomu réew mi ñu defar ko xam nga indi loolu noonu ci biir réew mi parce que bu ñu paree la ñu fay génneeg la ciy bénéfice yëpp day resté fii ci dëkk bi démb maa ngi saraan benn vidéo suñu benn mbokk bu nekk Kër Massar ma koy nuyu au passage mi ngi ci barab bi mu nekk jigéen comme vraiment di liggéey lu doy waar ci aar bi xam nga métier bi dafa yaatu comme fii comme garçon ñëpp mën nañ ci dóor waar parce que métier boo xam ne métier noble la métier bu professionnel la mais nag état dafa des pour ñu jàppale ko rëñee xam nga tey bu ñu jëlee blouse yi dem di ko jox tailleur yi ñu koy ñaw kenn mënul jàngi nga sol blouse soloo dàll kenn mënul jàngi jël sa ay kaye nga def ko ci mbuus mais fan nga koy def ci saak ñun dañuy defar ay sag dañuy defar ay dàll nañu koy jox ñu koy defar ci doomu réew mi fii la ñu dëkk di contribuer ci dëkk bi am na loo xam ne jeunes ñoo fi nekk fii ñun soxlawuñu dugg ci ay gaal di dem bitim réew soxlawuñu dem fii dem fee li ñu soxla mooy ñu investir suñu dëkk nekk fii di liggéey dimbali suñuy waajur ak suñuy njaboot dëkk ci dëkk bi nag di tekkee ci dëkk bi loolu lañ soxla quoi mais soxlawuñu dëkk ci dëkk bi dem di wuti feneen di indi ci dëkk bi quoi lii Europe lañ koy jëlee di ko indi fii mën nañ defee dàq yi yu dàq yi jëlee Europe gën ko dëgër gën ko riis te moo gën a baax ci tànk nit ki koy sol quoi. Mm-hmm. kon nañu jàppale doomu réew mi xam nga ñuy def consommé local loolu nag ci président lay njëkkee xam nga wàcc ba ci suuf. toujours dañuy gis ay milliards de président mi ngi koy def ci artisan yi ñun corps de métier bi nga xam ne ci lañ présenté muy métier cordonnier de mais milliards dañu koy déggu ko xam nga amul leneen loo xam ne wàcc si na ci cordonnier yi. te projet bu nekk déclaré ñu ko wax nañ ñu ko ñuy dundee yaakaar chaque jour xam nga dañuy ñëw wax wax ba bët sañu dem tëddi loolu nag dafay war a jeex ñuy lancer avec président Macky Sall na gestuwaat cordonnier yi Nous avons corps de parce que nous fi di mais vraiment dafa de